di fàttali ne guddi journée culturelle et religieuse ndax depuis ci suba lañ ko door jamono ji Nous ñu tollu ci diiné gi ba ci kanam amna pompe am solo bi politique ak la wala Nous ak politique lolé nak suñu El Hadj Mohamed moo ñu ko fara moo ñu ko war a faram-fàcceel ci kanam incha allah waaye laata loolu dañuy jox kàddu gi ki nga xamante ne moom mooy Khalifa Silla waaye balaa ñu koy jox kàddu incha allah bëggoon na daal ki nga xamante ne moom mooy Duudu Mbay am nu mu def ak askan wi ak mbooloo mi laata mu yëkkati kàddu bismillah. xam-xama xayrul basri خياري سمري إلى سويت كبري كالبدر وسط الدنيا يمتي الله محمد سرج مني خد كان ساتوي ويسودي في قدي جلي سودي يمتي الله محمد نسرين سرج بامو دونكو جسمنا واو مني أنت الكريم أنا الخديم dahran udiimu fi kasanaari sëriñ ba ma ne xat kaana saatu wi suti fi xadi jali sutati walam yakun bil mufrati walam yakun bi aadami ni wa anna rasulullahi jad yaaxi xatan وتولت بسر الأواتف عن خط ولد المصطفى وقع الأنهاء أقبلوني dañu fas yéene dugal nag sunu xarit sunu sëriñ di kilifa bu mag di gan di rakk si El Hadj Moustapha Sylla dañu wax ni seexal xalifa waaye nangul nga sa mag yaa tax El Hadj demul fenn yaa tax El Hadj yaa ka nekkal si naaj wi ma sa kër gi El Hadj Moustapha du woote téléphone. alaaji Moustapha demul dikkul nga uufal ka njaboot gi te yàlla tax dana tukki ak bitim réew ay weer bala may ñëw kër ga dara lu fi yëngu ngir yàlla ak sa jëmm yàlla la yàlla fay xalifa yaa bëgg sa mag xalifa yaa fonk sa mag xalifa yaa nangul sa mag xalifa yaa xalifa fa tabaarakallaahu yàlla la yàlla dafal jëm ah sunu sëriñ sëriñ Mansour Sy Djamil ñu ngi lay siyaar bu baax di la dalal ak jàmm alaaji Moustapha alaaji Moustapha ñëpp la ñëpp ko bokk kon nag na ñëpp diglu nu jox suñu xarit jox suñu sëriñ koo koy kan di xalifa Silla naka ñëpp diglu kon nag xalifa kàddu gaa ko jërëjëf Doudou Mbaye ñu ngi koy sant bu baax ci kàddu yu rafet yooyu nga xam ne yëkkati na ko ci El Hadj Khalifa Silla nga naa kuma konti yàlla ati Khalifa Silla مبادا بسم bismillah الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي كمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتنانا وألف بين قلوبهم قصبه بنعمته إخوانا ونزع القل عن صدورهم فزروا في الدنيا كلانا وخدانا ثم الصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم قولا وفعلا وإحسانا أما بعد جماعة المسلمين فبإذن وأمر من خليفة الآن الحاج محمد مصطفى سلة نهييكم باسمه وباسمي شخصيا وباسم الإسلام وخير ما نهييكم على وهي السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد ولو نالا كوسانينو كولا seytan la min mu dabari dabari fewti min mu baymooti nemo be bala min mi foño jon nambarola bare ŋamira ala nambaro a korta dulaɓe la bara korta ñin tanto la kaatu ñin tanto fenkimi mo be sinan jam wola mum ala anin kiilama nee na ginnaaw bu musloo ci seytaane te itam jàpp na ni ci tant bi seytaane mu fi place ndaxte woote bi yàlla moo tax ñëpp daje fi daayira toomaat be ajaamati sonko ñoo fi teew ñëpp ñoom ñëpp sëriñ bi nee na gis na seen teewaay mu leen di nuyu leen ngi delluwaat lenn dénk maa limbaara la di kontaan di bëgg lool ci seen teewaay. baltet lambat jayina. di leen gërëmaat bu baax a baax. baltet lambi jayina ini ina ñun bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Khalifa Silla ñu ngi koy ndokkale bu baax a baax di koy ziare si kàddu yu teggi yi nga xamante ne gis na ko jëm nag ci sant ak ngërëm ci woyalu ko jotaay bi rek incha allah mbokk ñu fas yéene wala ñu ñëw ci moom ñu fas yéene koo jox kàddu gi incha fa innaha maqbulatun la taraddudi amaluna ana ku gën a bëgg sayduna muhammad bayna alxabuli wa raddiha illa alsalatu ala annabi muhammadi fa kayfa axaafa annaara wallah كن صلوا على المختار ذو الدين مرضيا يا رسول الله ألا إن ربي والملائكة حوله يصلون بالمختار حق بمدحه لولا النبي رسول الله لخطور مولد بالاقسام بين ولكن من آمن كما الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات وبفضله تتحقق المقاصد والغايات وبتوفيقه تتنزل الخيرات والبركات اليوم أكملت لكم دينكم وأطمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وإمامنا وسيدنا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين رضي الله عن بحر فهامته أبي العباس أحمد التجان وجميع خلفائه سرين بي خليفة بي سيد مصطفى يلين نيو دي لزياره di la sa wàcce way sama teway fi li ko lay daay lépp mooy cofeel dama ñëw indi fi sama bopp señ bi fekk fi sama bopp di nuyu l'envoyé spécial du président de la République di sama coloré on a travaillé étroitement pour l'élection du président Macky Sall

si thème bi nga traité te muy thème bu nga xam bi samedi dernier il y a 15 jours même salle même place ma dirigé fi un panel sur le sujet imaniyatu dawla wa islamiyatu dawla la laïcité de l'État et l'islamité de l'État متى على النضال المسلمين وعلمائهم حين من الدهر لم تكن فكرة السلم شيء مسموع ومع أن الإسلام دين السلم ودين الوئام ودين السلام لما wax ni yàgg na ñi nga xam baatu jàmm quel monde ko lëkkaleeg islam l'islam. Son islam avec terrorisme son islam avec violence et pourtant la religion islamique est une religion de paix yalla mo tudde boppam paix malikul tous salaam tudde àjjana daru salam. wax ni sa àjjana di leen nuyoo asalaamualeykum fii si biir àdduna di leen nuyoo asalaamualeykum waaye kàtt yi jaxasoo na jaxasoo bu nga xam ne bii dañu yaakaar ni islam mooy safaanu jàmm kon nag di waxtaane sujet yu mel nii te sénégalais yi duñ ko faral di waxtaane man dem si kontaan

dem na mooy te ñu mbugal ko mbugal yu rëy leen ko mbugal te yàlla yabal jibril mu ànd ak malaayika toj ni waxal yonent bi ni nga liñ ko mbugal du moom lañ ko mbugal man la visé waaye su bëggee ñaari toj yi nga xam ne ñoo nekk tey wala ñoo nekk màkka mën naa ko commencé àñu tey effacé de la carte waaye yonent bi jiñ wax ni ko ëpp naa mu ni ko ñi may mbugal tey ëllëg seen ay jeexitat daan wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah demal tey cent pour cent de musulmans tey waaye seen cheikh dafa indi turas bu nga xam ne bi ñun ñii ñoo ko bokk sëñ Cheikh dafa wax ni lawla nabiyu rasulullahi ma urifat xadaratun sha'nuha ikramul ghuraba

sur son point de vue une voix Pastef c'est sur le même sujet c'est une variante au niveau simplement de l'appellation mais dans sa stratégie cognitive de communication et d'intervention c'est exactement la même chose et je vais conclure pour dire la communauté d'héritage que nous avons ensemble j'habite le quartier de France. J'ai ouvert après ma carrière internationale, après avoir fait 40 ans à l'extérieur, après avoir travaillé pendant 27 ans à la Banque islamique de développement, l'institution financière la plus prestigieuse du monde musulman, j'ai voulu transmettre à la génération qui vient cette expérience multiforme et j'ai ouvert une école coranique. Parce que pour moi, le point de départ, c'est à du J'habite le quartier de France Et il y a quelques jours, j'ai été présenter mes condoléances à une famille, à un élève qui faisait partie du talent. Et quand je suis rentré, on a annoncé que c'est souci de Le grand-père de cet enfant-là s'est levé pour me dire que tu voyages beaucoup, c'était pour moi une occasion pour vous dire merci pour le travail que vous faites à face. France est un quartier populaire et populaire. On avait la réputation que France est un quartier de voyous. Mais depuis que vous êtes rentré à Jeddah, vous avez instauré une école coranique. Et en France, il y a toutes les études. Il y a les Djola, il y a les Tougouleurs, il y a les serres, il y a les Lébou. Il y a toutes les études. Il y a les alcoolas, il y a les Poulfoutes, tout le monde est là. Et il y avait une barrière psychologique entre ces, ethnies-là. Mais il me dit que vous avez fait de telle sorte que dans chaque maison de face, il y a un enfant qui récite le Et même mieux, toutes ces ethnies, dans leur forme multiple et plurielle, se retrouvent, leurs enfants se retrouvent dans la, père, dans, la cour de ton père, et ils ont comme trait d'union le Coran. Et c'est un facteur important et comme disait tout à l'heure euh, Madame la Première ministre, que les marabouts contribuent à aider l'État. Et il me disait que la cohésion sociale, la cohésion nationale d'enfants qui ont grandi dans la même cour, sous la supervision du Coran, dit que c'est la meilleure contribution qu'on vous apporter aux enfants de demain, qui seront les prochains imams les futurs ingénieurs, les futurs médecins, les futurs premiers ministres, les futurs présidents de la République, mais les futurs khalifas également. Cette communauté de destin que nous avons ensemble. C'est pour ça que je me sens à l'aise ici. Maintenant, d'agou sous ma nez. Dans deux minutes, indi fi sama bopp fekk fi sama bopp. sëñ bi je jéggal ma. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah macha xam naa ni laata ñuy wéyal programme bi ndax am na ñeneen ñi xamante ne war nañu jël kàddu laata ñuy jël kàddu mbokk yi guddi gi dañ ci bëggalante ci wàllum zikar ci wàllum woy ba tax am na kilifa gi nga xamante ni yaakaar naa ni miin nañu baatam ci télévision yi miin baatam ci rajo yi miin baatam ci yeneen i anam ci wàllum jumtuwaay yi fii ci senegal ak feneen kooku nag mooy Serigne Mokhtar Thioune su fekkente ne jumuma mu ngi fii ci botaay bi ne jotaay ji nee na daa bëgg a yëkkati ay baat yu néew rek incha allah su ko defee ñu mën a wéyal li nga ne moo jëm ci ñu fas yéene jël kàddu asmaay ahl badrin ilkiram aouzu billahi min alsheytani rajim bismillahi rahmani rahim مبارك الابتداء ميمون الانتهاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم به جار السلام أسأله ارتجائي يوم رجوت من رب رهيم كان لي له حوسي في الدارين محمد وآله وصحبه ngi sant bu baax ci teewaay bi di ñaan seen gàmm gii yàlla nangu ko yonent bi nangu ko ci barke Sëriñ Tuubaa ñu ngi siyaare seen kilifa gii di sëñ Moustapha Sylla di sant it sëñ Mouhamadou Saaj nga xamante ni moom moo ñu yëgal bis bi ñëw ànd ko ndax inna diina inna laay lislaam lépp lislaam ñu ngi sant bu baax suñu kilifa ñu fi fekk waa ëxlu Mbàkke allahumma salli ala sayyidina muhammad jërëjëf sëriñ jërëjëf macha allah sëriñ bi cuun kontaan nañ lool ci moom yàlla yàlla wéral baat bi ginnaaw loolu mbokk yi dañuy wéyal ba tey li nga xamante ne moo jëm ci waxtaan yi ñu fas yéene jox kàddu keneen ki nga xamante ne taxawaayam ci biir liggéey bi ñëpp rajatu nañu ko kookee kenn ku dul Ousmane Diatta moom lañu fas yéene kon jox kaddu gi incha allah moom mu tam mu yëkkati ay baat auzu billahi mina maa ngi nuyu képp ku fi ñëw ci sa ak sa sant di ziar

la salle de l'unité africaine di wax ne damay remercier ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ si liggéey nañu ay mois ay weer ñun ñëpp ñuy sottante xalaat di weccoo xalaat def en sorte que ñu war a mën a aboutir ci organisation bi nii ñun ñëpp nag di sant di gërëm ñëpp ñi fi teew ci turu sëriñ ci turu comité d'organisation bi ndax CICES tay la démb golf la woon waaye CICES sori na ñëpp bàyyi li ñu daan def tamit jàpp ci daw si ñëw egsi ba fii ñëw fekkee bis bi màggal yonent bi sallallahu taala alayhi wa wax ji nag ah, du sori lu dul ma jeexalee ci ah, soxna Aminata Touré ndax ah, ku ma xam xam ne Aminata sama sama mag ju baax la ñu yàgg di ànd mu di ma jubbanti ndax dama xaw tër mais Euh, du ma def dul di ko gërëm di sant ci taxawaay bi mu taxawaay bi mu am ci man cofeel bu mu am ci man manit boobu laa am ci moom ñu ànd ngir yàlla di doolante di xalalante ah, ay rakamit soxna Sophie ak soxna Madina ñun ñëpp jàpp nañ ci bis bi ndax bi ñu demee Taïba ci bis bi ñu jeexalee gàmmu Taïba la ñu commencé di xalaat ci bisu bi bis tay bi kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant di sant samay wayjur sant sama euh, jigéen ji nga xam ne jóge nañu ba Mbuur ñoom Adama Diatta ak ñoom Astu ñoom Ami Diatta famille Diatta yëpp ñu ngi leen di euh, ñaanal ngeen am gàmmu bu baax te mën a delluwaat Mbuur ci jàpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu fas yéene wëyal jotaay bi ak kàddu yi nga xamante ne ñoom lañuy seddale léegi nag ñu fas yéene jox kàddu gi ki nga xamante ne moom mooy soxna Aminata Touré di envoyé spécial président Macky Sall ci digganteem ak sëriñ bi du tey démb la ba tax ñu fas yéene ko kon jox kàddu gi moom itam incha allah.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 ak di nuyu bu baax honorable Mansour Sy Djamil maa ngi lay ziyaare ginnaaw ba ma tegee sama nuyoo jëmale ko ci kilifa yi fi toog yépp ci loxo yi suma xarit def naa fa lay tàmbale suma càmmeñ waaye suma sëriñ sëriñ El Hadj Moustapha alaaji Moustapha nag laa koy wax man ndax euh, ni ko Ousmane waxe sànq dafa di kóllëre bu yàgg lool bu ñu mag man ak moom ndax way juram la woon El Hadji Xasim Silla ak sama way jur man rakkam ñu tuddee ko sama way jur jigéen man mii kon diggante bi yàgg na lool muy diggante boo xam ne diine ko la waaye kóllëre la moom it li taxit mbokk gi ñëwaat muy yàllam ko jaarale ci loxo yi suma rakk ju baax ji di Ousmane Diatta moom it maa ngi koy gërëm di ko ñaanal bu baax a baax di nuyu jigéenam yi mu àndal ak bokkam yi mu àndal ñu jóge bu mbuur Ousmane nag di ngeen ma may tuuti ma taxaw ci moom ndax dafa di ko xam ne yàlla li mu ko nattoo mooy dimbale doomu aadama waaye ci dimbale doomu aadama boobu ku ciy fàtte boppam dama ànd ak moom it ci association bu mag boo xam ne bii alalam la ciy def def ci temps ak ah, xam naa ne yenn saay sax xëy na mbokkam yi duñu comprendre waaye yàlla nag moo ko nattoo ci def lu baax defe naa ne fii ci Sénégal day ay junniy junniy junniy junniy doomu aadama mën naa wax ne seen wër-gu-yaram yàlla ci loxo yu Ousmane bii la ko jàppale ànd nanu muy jële tout le temps ay docteur Amérique du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon ñuy faj ñi nga xam ne amulu doole seen loxo jotul seen ginnaw ci lay yendu ci lay gont ci lay fanaan kon nag Ousmane yàlla na la yàlla fay boo ñëwee moo ñëwee tey lii ci gàmm bi sa kanamu wasila bi toogee ak sa kanamu mbokk yi ak askan bi yépp loolu it dinaa la ko seedeel alaaji Moustapha maa ngi ànd tey ak suma rakk yi soxna Madina ak soxna Safiyatu yi nga xam ne fekki woon nañ la ba tey ba marsaasu ci sa gàmmu gu réy bi nga xam ne boo koy woote Casamance kenn du des du autorité administrative du kilifa diine bu nekk Casamance te du ñëw teewee sa gàmmu googu nga xam ne ay junney junney nit macha allah ñoo fay taxaw toujours dañuy am kontaan te ñëw wuy si la ci yu mel nii ren yaa ngi ko defee fii Cissé daan nga ko def ay ati ati at fële ci géejuwaay ba xajatloo ci place ba ah macha allah Ousmane am xalaatu indi ko fii ba du bëgg nag mu mujj di ko def at wu ne ca Grand Théâtre incha allah. yow nag naga nga di aussi kilifa diine bu nu ràññee ki réew ndax it say toog tànk waaju moom nga topp këyit bii di brochure bi nga xam ne jàllale na ko maa ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax li sa wayjur def li sëñ Xaasim si la ci tasaare l'islam ci Casamance ak ci Sénégal baax na aussi Sénégal yépp xam moo tax kayit googu am na solo yow it nga tàpp topp ay tànkam ñu xame la ci liggéey ak jaamu yàlla ak jàngale alxuraan loolu de la ñu xam ci yow ba macha allah Sénégal yépp respecté la àddina yépp respecté la nii ngay gàmmoo fii ci Sénégal noonu ngay gàmmoo France noonu ngay gàmmoo Europe noonu ngay gàmmoo àddina yépp te saa yoo yëkkatee sa kàddu li ma ciy dégg ak li ma ci jàpp ci li ñuy li ñuy yàgg ak mooy yaa ngi delloo ci xel yi ci jaamu yàlla di fàttali ne jaamu yàlla day li ko jiit ginnaaw boo ko gëmee gëm yonent bi sallallahu wa sallam la nga cay teg mooy digle liggéey at jub kooku day saa yoo yëkkatee kàddu muy ci conférence muy ci gàmm maa ngi rafet lu toujours ni ngay ñaaxee askan bi day déglu ci jaamu yàlla liggéey ak jub loolu nag mooy li yor dëkk dëkk moom diine bu ko jiitoo bu ko jiitee gëm topp ci liggéey topp ci ah, yàlla mën na noo defal sutura kon maa ngi rafetlu sa xel mu rafet maa ngi rafetlu ni ngay gindee toujours askan bi di leen yee ci li nga xam ne mooy farata diine muy góor muy jigéen it may nuyu it bu baax a baax borom kër yi waaye di di nuyu bu baax it sama naataango jigéen yi nga xam ne macha allah ah bu nu wootee lislaam it duñu des ginnaaw booy seet sax ñoom ñoo ciy faral di ëpp kon ñoom it maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di terminer rek. ci ñaanal la ci suma àlliwu gàtt gàtt gàtt gàtt yàlla bàyyi la ci kanamu njaboot bi ak kanamu taalibe yi lu yàgg yàgg yàgg nga ne fi te wër ah ñu ziyaare bu baax famiru borom Touba fi ñëw ñëpp ah di jot li sunu ziyaar xalif général sëñ Sidi Maxtaar di ko teg ci sëñ Basiru bi fi nekk ah di nuyu it famille yu di nuyu famille yu Tiwaawan sama mbokk yi andi ko tegit ci loxo honorable mu jottali ko ah suma nijaay xalif général di Tidiane Serigne Abdou Aziz Sy kon Alaaji Moustapha Serigne Moustapha dinaa nuyu it aussi xalifa sarak ko ju baax ñi nga xam ne moom nga àndal wax dëgg yàlla muy ku am yitte ci nit ah, ku la taxaw it loolu it ñu xam ko gërëm la it sant la ci ni ngay jàppale aussi état ndax état yi képp kuy yee askan bi di leen digal lu baax di leen xiir ci li nga xam ne moom la lislaam santaane muy jàmm parce que loolu it bokk na ci li nga xam ne sa màndarga liggéey bi mooy dox jàmm tey bu jàmm amee Casamance dugal nga ci sa loxo bu baax a baax a baax a baax da nga di koo xam ne nag wanewu du sa jikko wax ju bari du sa jikko waaye ku la xam xam ne homme de valeur bu mag a mag a mag koo xam ne kii dugal nga sa loxo ci jàmm xiir nga askan wi ci liggéey ah xiir nga leen it ci gor kon dañuy am toujours kontaan féddali la suñu kóllëre ah jottali la it suñu nuyooyu wàjj soxna Nafi ah di ñaan nga ñaanal ko bu baax it moom it mu ngi lay ñaanal bu baax kon mbokk yi loolu doon kàddu yi yal na nu ko fekkee ay déwén yu bare bare bare bare ah te gàmm bu ñëw rek bu déwén ba dax jërëjëf mbokk yi